wala Aliou Ndiaye. Moustapha na ay kaddu daal di koy jëmale ci diggante Sénégal a Gambie nee na Yaya Jammeh daf ñuy fontoo di kaddu Moustapha Diakhaté dana ñëw ci loolu indi ca ay leeral la nga xam ne bii mooy mbirum Aïda Mbodj démission ba nga xamante ni bii kat moom la Aïda Mbodj wax nan la Moustapha Diakhaté jàngatee lu mel loolu lépp dana ca indi ay leeral maître Madické daal ne diplomatie kenn du ko doxalee nii du da ngay tiit lekk wax taxawaay Moustapha Diakhaté du noonu loolu dana ci indi ay leeral mbiram ay dëmbuj tamit ki nga xam ne moom la wax maître Madické dana ko càmbar daal cay indi ay mi nga xamante ni bi kat mi ngi bokk ci parti Ousseynou Darbo yëkkati na ay kaddu wax la nga xam ne bii moom la ñu tuumal yaa jàmme ci Éthiopien ya indi na ca ay leeral ak opposition Gambie nan la fas yéenee taxawee njëkk mi loolu yëpp dana ko faram fàccee nga xamante ni kii moom la ñuy wax Yaya Jammeh daal di nay jugé ña nga xamante ni bi ñooy opposition ba ba leen di jugé nag def na témoin Sénégal yi en direct la ko def léegi léegi lay doon revue de presse Yaya Jammeh kon suka tout à l'heure. ci sénégalais sénégalaise mes chers compatriotes ñi ngi am mbégte ak kontaante mais aussi tamit di am naqar ci musicien bu mag boo xam ne ñu ngi naan ko Papa Wuyomba nga xam ne musique am dëkk na frontière dëkkam wasaaroo ci àddina eh, loolu nekk loo xam ni lu ñu war jàng la parce que sunu musique bi ba tey dafa bloqué ci fi nga xam ni moom la bloqué mooy grand théâtre artiste yu bari ñu ngay wax ne dañuy tëgg foofu ci Bercy mais dañu nembiku ne bu nekkee ni artiste bu mag dëgg dëgg dëgg dëgg bu mag bu tëggee ci dëkk tubaab yi tubaab yi ñoo koy seetaan mais dañu def constat que ni ñun suñu artistes yi bu ñu demee bitim réew di tëgg wax dëgg fa yàlla ña koy seetaan du ñenn ñu dut ay doomu Sénégal rek ñoom ñoo fay nekk di ko seetaan. bi bëttut yi ba tey dafa des ci ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi. en commençant par ki nga xam ni moo leen jiite mu Youssou Ndour Youssou Ndour ba mu dalee musique ak léegi vraiment yàgg na waaye Youssou Ndour berceel bii boo ko déggee ay Sénégal rek lay berceel mësta berceel ñeneen ñu dul ay sénégalais kese ñoo fa nekk mu leen di berceel Wally mii topp na ci ginnaaw moom it ay sénégalais rek la nara a fas yéene berceel kon mu mel ni musique sénégalaise doxut sénégalais yi ñooy dox mu dem ñu topp ko fekk ko musique buy dox day dox ba génn xeet woowu loolu mooy wane ni culture bi ak musique bi ñu ngi dox musique bu Sénégal nag li ko yàq bokk na ci diw di way baayam diw di way liyam diw di way laam di way lëlam ñu yemale ko ci mbay mbayaan gu mat sëkk ak koo xam ni yaakaar nga ni am na ak koom nga ne ci loolu rek la musicien sénégalais yi nekk tànnal ma ñi nga xamante ni bi ñoo fi nekk nga teg seeni morceau yow mi seetaan ndax di nga ci gis lenn loo xamante ni bi luy jariñ benn seen la ñuy wax yépp lu leen di jariñ la ñoom ci seen bopp mooy ku leen may ak koo xam ni jox nga leen dara loolu dong la ñuy way mais amul idéologie ñi nga xam ni am nañ idée am nañ ay idée di way way yu am solo di musique musique bu baax boo seetee Sénégal sax siiwaluñ leen faalewuñ leen toppatoowuñ leen et pourtant Sénégal am na ay musiciens yu mag a mag a mag mais nag terewul daal ña ñuy jiital chaque jour mooy ñi nga xamante ni bi ñoo yàq musique sénégalaise te boo seetee buñ demee réew moo xam ni dañ naan aneem bii de lu mu naaj naaj bu yàqee ma kontaan ku ca mel ni Salam Diallo bu demee ba nekk uuse nekk musicien ah, wala mburoog bër baara mbay mburoog bër seetal lu ñàkk fayda lool amoo dara looy way lu naan mburoog bër mbokki Sénégal musique Sénégal bi demut nañ bàyyi naan ministre de la culture donte liggéeyu dara moom bañ waaye musique bi tamit wax dëgg fa yàlla fañ ko doon séentu yeggu gu fa sénégalaise sénégalaise mes chers compatriotes jërë ngeen dañu leen wax wax ju leer dama ne cinq ans dafa gàtt sept ans la lu nga xam ni taxaw naa si ko si réew bi pour mun a am karange ñi nga xam ne ay sàcc lañ euh, ngi lay nuyu di nuyu président Macky Sall. ndeysaan. Mhm. di nuyu soxnaam soxna Marième Faye ci taxawaay bu rafet bu nga xam ne mi ngi ko taxaw ci réew mi parce que dañu wax ni. une grande dame. dëgg la soxna de nangu naa ni grande dame la. ndaxte ni nga xamante ni bi noonu lay liggéeyee jàppale ko borom këram. Mhm. loolu wane na ni wax dëgg fa yàlla taxaw na temm ngir borom këram lépp loo xam ne sumb na ko ci mim réew wala loo xam ne waxoon na ko sénégalais yi mu daal di koy jëfee ba tax na daal euh, mënumaa def lu dul ma ko encore une tey sant le président de la république ndaxte fii ma ne ak la nga xamante ni bi moom laa ngank budutoon ak moom kon wax dëgg fa yàlla du ma ko jot mm. kon du ma def lu le président de la république di la déglu ngir nga laaj ma lay ay wa waaw Moustapha Diakhaté yow diggante Gambie yoon ba nga bëgg a indi li indi li nga xam ne rek moom moo di incident euh, diplomate ba nga naan na Yaya na Yaya wala yow léegi Gambien nga wala lan ga Eh, soxna na dangaa laaj laaj boo xam ne laaj bu am solo la. Mm. muy loo xam ni xew na fii ci sunu dëkk gi nekk ci sunu pegg di ki nga xam ni moom la ñuy président Yaya Jammeh. Mm-hmm. président Yaya Jammeh ab taxaayam dafa ñaaw ci miim réew. Mm-hmm. ndaxte bu fekkee ne dangaa nekk ci am réew di ërtal ñi nga xamante ne bii ñooy saw askan di nga am di leen xoqatal te jëm ba di nga am dem di ba. nekk loo xamante ni bii benn africain du ci ànd képp koo xam ne panafricaniste nga naqarlu nga li nga xamante ni bii am na ci dëkk Yaaya Jammeh mhm. tey jëfut jëfu dëkkandoo ndaxte ñun ak moom ñi nga xamante ni bii dégg nga euh, ñu sës ci ñun rek Yaaya Jammeh am na noo xamante ni bii mi ngi koy taxawee ak Sénégal taxawaay boo xam ne taxawaay bu ñaaw la mu loolu bokk ci li tax ma ne Yaaya Jammeh dañ ko war a mhm. dégager mhm. parce que soxna su koy na bul ump ni réewum Gambie ñoom ñoo njëkk a tëj seen frontière mhm. laataan mbirum burkis bi di am ñoom ñoo njëkk a tëj li nga xam ne ko def président Yaya Jammeh moo ko def ak taxawaayam nag ci Afrique dee naa ne africain yëpp war nañoo jóg daal di àndandoo doon say xeex Yaya Jammeh parce que nekk ci dëkk bu tuuti sonal leen sonal goo xamante ni gii mar de taali mel ni yéen a yaay seen ab Saddam wala yaay seen ab Kadhafi loolu waratul koo nangu mu am ci Afrique sowu jant gi te Sénégal nag da cee war a wax président Macky Sall war naa wax ak Yaya jëlee ko fi nga xamante ni bi fa la nekk mu ci bopp réew mi ñu teg président boo xam ne bi day respecter la démocratie comme ni nga xam ne noonu la ko président Macky man soxna su koy na yaakaar naa ni war naa bokk ci ñi nga xam ni war naa yëkkati ak kaddu jëmale ko ki nga xam ne mooy yaay jàmbe ndax sa taxawaayam taxawaay bu ñaaw la hmm, ba tax na ma tax ma yëkkati ay kaddu nii loolu tax ma yëkkati kaddu jërëjëf Moustapha soxna Aïda Mbodj nekk jigéen bu ti ko ngànk fi lu kenn nangu ci réew mi muy ñetti place mhm. loolu gouvernement bu Sénégal du ko nangu parce que nag am xëy dafa jafe ci mim réew am na ñu bari ñoo xam ne bëgg am ab xëy waaye wax dëgg yàlla mën na koo am ndaxte fu ñu bëgg a xëy rek ay dëmbu ndekete moo toog ca boobu loolu bokk ci nga xamante ni bi moo tax noonu ñi nga xamante ni bi nag ñoo yore gouvernement bi ñu ne ay dëmbooj lii nga xam ni moom lay def waruñu ko nangu tey waruñu ko nangu ëllëg ndaxte ñetti place nga boole ko kimile ko da nga am bu weer dee nga fayee ko fee ko fay dem fay ko fay day dellu ca la waykat boo altine nga nga cuuc loolu du nag ne moom lay cuuc ab carte gabam ko fa ko bët di da nga koo teg bët bëgg a dajale luy toll ak trois yoo xamante ne bi nga xamante ne bi soxna si waaw am réew bu doon man mi damaa yor ñetti poste keneen yor ñetti poste dee naa ne ñii liggéey du lu bari man defe naa ni dafa am loo xamante ne bii ah. boo ñamee da ngay bàyyi sa morom ñam luñ naan boo fayoo ba mu yàgg bayil da ngay euh, kon ci say kon Moustapha ci say kàddu mooy yow li ñett poste yooyu ay dem am yow ko moo tax nga koy bëgg a yàqal yow boo ko amoon euh, na boo amoon poste yooyu su ma ko amoon nooy def damay fas yéene rek denc ñetti soxna ndaxte bu ma dencee ñetti soxna soxna bu ne ma sédd la salaire bu boobaa day mingoog li nga xamante ni bii moom la ñuy wax xeex la chômage ci mim réew ah ndaxte ku xam ne tamit jigéen tamit wax dëgg fa yàlla mérité bu ko defee carte gab bi dama koy jox aaw ba ba ca ma jox ko ñaareel ah ba ca des ma jox ko ñetteel waaye ab jigéen carte gab dégg nga bu weer dee nga dem di cuuc fi cuuc fee cuuc fële <laughs> loolu nag wax dëgg fa yàlla duñu ko nangooti tey duñu ko nangu ëllëg loolu rek mooy li nga xam ne mu laaj doon wax soxna su koy na jërëjëf <laughs> di santaat di gërëm président Macky Sall ak soxnaam di wax ne ko Marième Faye daal yaa ngi liggéey ci réew mi di jàppale sa borom kër. yow waay samba nga tey yeyoo nga. mu jox la nit ko <laughs> yaa ko yooyoo soxna Marème Faye moo tax munu maa wax ba yeggal. te loolu ma la defal loolu nga xam ne mooy wulu kon soxna Marème Faye. waaw. <laughs> nee na euh, góor ci bopp nee na jigéen ci boppam war am ñetti pos nee na moom nag bu ñu ko joxoon li nga xam ne moo di ñetti pos yi dina ci wut ñetti jabar. kii aaw bi kii ñaareel bi kii ñetteel bi loolu yomb na daka ma dikki ña kotita xujja soppe sëñ Saliou Mbacké ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, maître ma dikki nuyu naa la sant yàlla julli si yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. gërëm nañ sant sunu wasila mu Cheikh Sidi Mokhtar di ko ñaanal mu ànd fi yàgg ak wér mu yàgg fi te maa ngi lay déglu. waaw pour nga laaj ma tontu. Euh, xam nga nag yow maître Madické macha allah euh, yow da nga doon wax diplomatie diplomate Sénégal dafa comme ni nga ko doon waxee rek léegi maître Madické en tant que ancien diplomate noo déggee kàddu Moustapha Diakhaté yi mu fi géttee léegi xanaa daje ak moom. naa ak moom. Mm-hmm. dama jooy. da jooy. dama jooy dama jaaxle. ndax nan nga jooy. parce que diplomatie. du ko jóg rek da nga sa daawa dafa am na nga xamante ni ñoom la yàlla jagleel ñu nekk ay diplomate de nature comme man mm. soxlawul may dem si école diplomatie dëgg la soxlawul may jàng diplomate ndaxte yàlla si boppam def na ma diplomate ba pare loolu bokk na sax la tax mm-hmm. euh, ma yëkkati ay kàddu di wax ni ñaawlu naa taxawaay ba nga xamante ni moom la Moustapha Diakhaté taxaw barke Sëriñ Saliou dañu kaa ñaawlu ndaxte Moustapha Diakhaté dafa war a xam ni waxam comme que moo nekk président groupe Benno Bokk Yaakaar nekk ci assemblée nationale waxam dafay nekk wax boo xam ni du doon waxu grand place ba ko waxee fii Gambie danoo interprété wax jooju. dëgg la dégg nga le président Yaya Jammeh. Mm-hmm. nee na mi ngi xalaat sax pour génne ambassadeur. bu Sénégal ba nekk si Gambie. ëpp na loolu yëpp wax Moustapha Diakhaté bi moo kaa indi. parce que bu Moustapha jaxate waxee Yaya Jammeh dafa wax ne naar bu ndaw la mu wax mu ngi ko déggee sa ba waag ba te ka wax waxul. ko jottalee wax dëgg la moo war a wax wax jooju. Mm. loolu dafa indi incident diplomate. Mm-hmm. ba tax na ma ngi xamal diplomate Sénégal jamono bi mu toll nii nasax na. nasax mm-hmm. na parce que. ñi ko yor. kenn xamu ko diplomatie bi dafa jooy. dëgg la ñu ne ko ma diplomatie looy jooy. mu ne dañ ma jox ku ma xamul. diplomatie dellu jooy. mu ne ko lan ngay jooy ñu ne ko diplomatie looy jooy. Mm-hmm. mu ne ki ma moo xamul man maay kan. dëgg la diplomatie jooyaat. ñu ne ko uh-huh. diplomatie looy jooy. wax si man te kenn dégloo ko. ndax ñu ne ko diplomatie kooku kan la. mu ne ma dama dikkee mu ba bu mag ba. ndeysaan mhm. eh, ne ko diplomatie kookoy kan. mu ne kookoy ko diplomatie kookoy ne ne ko diplomatie kookoy kan. mu ne kookoy ki sës ci ñin farawaat di njaak. ne ko diplomatie kookoy kan. mu ne takkoog njëg njaak farawaat karim farawaat di njaak. Eh, yuquma sa ma dikkee. lu mu la wax si diplomatie jëfal lu mu la si waxul booy boo baare te xam ñu du lu baax. ndeysaan diplomatie. dafa jooy. jooy xool pale. ndeysaan na Macky Sall déglu ko diplomatie ngi jooy. mi ngi jooy. di jooy di jooy. di jooy di jooy. ndeysaan loolu la wax. di jooy di jooy mais. fas yéene naa pour jàppale madame Aïda Mbodj. Mhm. parce que la nu ko def teguwul si yoon. dafa ñaaw. dafa ñaaw. Mhm. parce que nii lu nga xamante ni moom la noo def mooy jaay doole moo tax comme que jël na yëpp yóbbu ko ci justice dami wooma muy maître Wade di ñeen farawaat di njaar daara farawaat di jaax yuqu ba si songum xeer bàyyi Karim ak suñu récolte bi bi eh, wax ak man ma ne ah, mu ne ma jàppaleel Aïda Mbodj kon taxaw naa pour jàppale Aïda mhm. Mbodj pour ñu delloo ko ay postam parce que nguuru Macky Sall gi dafa bëgg a commencé di jalgati lu nga xamante ni bi moom la nooy wax justice te duma parce que nag dama nekk un homme de droit jàng droit xam droit nga xam ni sama lépp droit la man dama bañ ba duma jaar sax si télé bu dénk droit sama safoor bu dénk ma ne ko jubalal eh waay sama mu ne ma fii suuf la ma ne ko jubalal ma di xamul jaar du jubalal ndeysaan jubalal jub rek man bu ma jàddee rek maa nga jëm mu Tuubaa ñëw ba Cees jàdd bu dul loolu jàdd du ma ko def parce que sëriñ Saali loolu moo tax ma xamal ay Aïda Mbodj nekka mhm. ba tëddee na nelaw bu tëddee na nelaw ndax lu jub naa pour nekk avocat am dinaa ko wàññil prix bi li may laaj du bari danga koy fayeeku quand même damay liggéey na ay ah, Mbodj mbooj la te ma nekkuma teel na lambas tuuti rek. waaye maître Madické sa waaw la. la plaider ko. waaw nga ni na am lu mu lamb rek. kon ñaata si na am lu lamb Aïda da ngay am xel tuuti rek. parce que tamit di la défendre damay yàgg si kayit yi di lire. Ah. di xoolaat droit ak article yi. xool fi ma war a dugg fu ma warta dugg kon Aïda. lambal ñëwal géew affaire bi du seer. boo joxee ay 10 millions noonu noonu rek. millions. dina jàppale la ah, baax Serigne Saliou defal la ko ngir jëmmi Serigne Saliou parce eh, ñoo ngi tudd Bugari Darbo Bugari Darbo wax si Gambia yëpp ah, ñoo nga tudd léegi bu dee fii bu dee Sénégal la day nekk Daabo waaye hmm. bu fekkee ne dafa bokk ci Gambia fay nekk Bugari Darbo Darbo la du Daabo Darbo Darbo Darbo léegi kon ñu bàyyi la nga nuyu nga. nuyu naa Sénégal ak Gambia yëpp. Mhm. ndaxte Sénégal yëpp defa nekk benn people. Mhm. yaa ngi dégg parce que du ñaari people mais one people la. parce que li tax mu nekk one people. mooy si diggante Gambia ak Sénégal yàlla defa def tubaab bi jaxase ko. angale bi roofu si biir saytaane wax ni lii tubaab moom moom lii angale moom moom. Uh-huh. waaye yëpp a one people la. one people one people la ndeysaan uh, nee na ba Gambia uh, nee na Gambie li nga xam ne rek uh, moom moo benn benn kii la benn. kenn mënu ko xam ñaar voilà waa Bukari eh. yéen yëpp ngeen ki xam ne rek moom moo di président Yaya Jammeh ah, de lu ñu wax foofu la dañu nekkati ay kàddu ni ki nga xam ne rek moom moo di Yaya Jammeh dafa hmm. jël ay jigéen <laughs> éthiopienne hmm. dugal leen ci li nga xam ne rek moom moo di auberge waaye li ma jaaxal mooy yow yaa eh, eh. nga xam ne rek moom moo di kaamilam. Eh, ah, yaya bëccëg boobu mooy bi. dafa am yaya guddi. Ah. su bëccëgee dafa kaamil bi mu nax nit ñi. alhamdulilahi rabil alamina. Mhm. su guddi jotee yaya dafay teg boobu sol jëngalam. Ah? day sol jëngal yaya day sol jëngalam wala mu def pinwam bu mu dem ci over boobu mu begee yaya ku xam lu neex la te bëgg lu neex yaya kenn génn ko xam lu neex kenn génn ko buggu lu neex mm. parce que yaya yu mu tànn bi eh, dañoo nekk because man ñoo xam ne du ñu ay Sénégal sax man yaa ngi dégg parce que dafa dem ba Éthiopie mu tànn foofu neuf femmes éthiopiennes yoo xam ni ñi ngi di beggee ak ñoom ah. ci hôtel yu sikk lañ dee nekka ah. ci hôtel yu neex lañu dee nekka yéen da ngeen ci xam dara. wala ngeen ko topp dañu ko parce que ah. bu man dama bëgg pour mu leer ni Gambia yëpp ñun xam nañ léppa léppa dañu ko xam si biir Gambia. Ah. dañu xam taxawaayu Yaya. yéen da ngeen ko xamul ba pare Yaya su guddee day tàppa di raay. Yaya dafa bëgg lu neex xam lu neex éthiopien xam nga du ñu am yaram. du ñu nekk dina day sew fowukaay day ndaw Yaya boobu la bëgg <laughs> bu sew boobu moom la gën a soppa soppa ma ne man ragaluma ko faalewuma ko because man parce que man lu ma dee gem lu ma dee gem ci suma boppa man suma people laa gem Gambia laa gem ak Gambia yu nga xam ni ñoo fi dee nekka ñoom laa gem man faalewuma yaa jame dama wax ni ñun ci mouvement bu ñu dee nekka nga xam ni dafa nekka yayaa moo ñu soof bi ah, ci lañu dee bokka ci la saa dee bokka <laughs> ci lañ dee bokka ñun ñëppa pour takaw pour génne ko ci Gambia bi loolu ñun ñëpp dañ si de takaw mais li ñu de wax ni ci éthiopienne yi yaa xam na xam nañ yaa xam na xam nañ te fowukaay day ndaw boobu moo ko génnal ceeb bu sew bi loolu lay wër loolu lay wur ceeb bu sew bi la buga la buga yaa dafa bugg ceeb bu sew bi bugul diriyanke bugul mais diriyanke léeg-léeg mu nekk ci waaye bu sew bi éthiopien yi dañuy dee bondé di tel yaya yaya di tel telu di tel tel telee na yem fii mais dafa bugul mais bugari sa wax ji na fi yem boobu soxna si loolu lu lu am la ñun wax duñu waxantu de man duma waxantu man bu may wax rek dégg la kon xaaral da nga xamoon bu baax a baax. dañu xam yaya. ah d'accord ah, dañu ko xam. na ah, bàyyi gam yaa teggee na dëkk bi. bu fekkee am na xam nga. xool ñun ñëpp a yu dëkk Gambia opposition bi yëpp dañu dee nekk benn pàcca benn dumbul. muy benn benn bopp daal ak ñu nga kam ni ñooy société civile yi. Ah, nekk ci senegal ak yeneen des dëkk. Mm-hmm. yëpp ñu ngi jee takaw pour jàppasi. Mm-hmm. pour ñu jàppasi pour takaw pour génne yaa ci dëkk bi. am na son bu nga xam ni je pense que munu musu ngeen ko dégga uh-huh. ñu way ko pour wax ne yaa dafa war a génn ci dëkk bi parce que dañu wax ni slogan bi benn la uh-huh. yaa dafa sof ci dëkk bi nañu leen ko génn dëkk bi du doon kenn ku sof ci dëkk bi nañu leen ko génn ci dëkk bi loolu dafa nekk loo xam ne gam yaa yëpp léegi booy dox dañu ko dee wax Ah. dañu ko dee wax. kon yow boobu ngeen jël daf ko son. loolu moo nekk son bi parce que ah. yéen bu njëkk a da ngeen doon wax ne na góor bi dem. waaw na dem a dem a dem waaw. ñun du loolu. yaya moo sof ci dëkk bi nañu leen ko génne ci dëkk bi. du doon kenn ku dul moom nañ leen ko football ci dëkk bi. ah dafa war a génne ci dëkk bi. dafa ñu dee soof man loolu nag. ñëpp dañu si taxaw pour jàpp si ñu ngi gërëm. nga xam ni taxaw nañ mm-hmm. pour mm-hmm. jàppale ñu si liggéey boobu mm-hmm. ak ñu nga xamante ni bi eh, ñoom ñooy doomu Banjul yu nekk ci diaspora bi yépp seen liggéey la uh-huh. Amérique ñu ngi ko si dee santa gërëm ko si dégg nga uh-huh. ak ñi nga xam ni ñooy oni commencé nañu gis ñaawteef bu nga xam ni yaa mu ngi ko dee def ci digg Banjul waaw buggalu neex président bu buggalu neex léegi mouvement boobu a adhéré ci nan nga war a def parce que dafa am sama benn <coughs> <coughs> xarit boo xam ne bëgg na cee bokk ci mel ni saa meng mm. waaw mouvement bi pour bokk si yomb naa <coughs> rek yow nga gëm sa bopp gëm ni gam yaa war na mun a dem sans ñu mel nii nga xam ne dañu day yaakaar esprit Sénégambia bi. dëgg la parce que Sénégambia daf dee nekkal lu am solo. Uh-huh. yaa dee dégg uh-huh. donc nag bu fekkee ne dafa am koo xam ne daf dee taxaw di ko dee yaakaar. Uh-huh. dañu war a fexe kooku génn ci dëkk bi pour nag mu nekk njariñ ci Sénégal nekk njariñ ci Gambia. parce que sam Gambia ak Sénégal benn people la. benn dëkk la benn la kenn mënu ko xar ñaar du ñaar benn ah, dëkk la Gambia a Sénégal benn dëkk la. boo demee Gambia da fa fekk. nga fekk fi joola nga dem Gàmbi nga fekk fa soose nga ñëw Sénégal nga fekk fi soose nga ñëw Sénégal nga fekk fi olof nga dem Gàmbi mu amuna olof man dem yëpp kon benn la yaa moo war a génn ci dëkk ba dañ leen ko génne ci dëkk ba yaa moo sof ci dëkk ba wasalaam wasalaam jërëjëf Bukari yaakaar naa ni yaakaar naa ni nice na nice na nice nice ndax nee na yaa moo leen sof ci dëkk ba nee na yaa waaw Euh, yaa jàmme mhm. def na procès mm, mm, mm. teg na ñi nga xamante ne bi ñooy opposition ba a ji jàngat nan la leen di attee waaw parce que yaay nag gars yi dañ ko yàgg accusé mhm. moom nee na Gambie justice ba ca tribunal ba la yóbbu gars yi pour atte leen pour nit ñi daal di xam kon Yaya Jammeh ca tribunal ba allez gros bisous à toute la population sénégalaise à demain inchallah ginnaaw boo sant yàlla xam nga wax bi dafa bari naka di yëkkati kàddu yaa jaame lu mu day def tegu ko si yoon yaa jaame lu mu day parce que day rey day rey day rey ji dafa commencé bari mm-hmm. eh loolu boo si lu nga xam ne moo tax en tant que eh, njiitu Gambia bi ma wax ne balaa may def dara dañuy àtte si yoon pour addina bi yëpp mun a xam Gambia nan lañ dee àttee kan ko xam ne def dee def naka sudul noonu loolu boo si loo xam ni moo nekk ak kefin bu ñu dee bugg a lifin pour leeral parce que bëgguñu lendamal ñi ngeen ñi ngeen gis ni ñu taxaw ni ñooy ñu nga xam ni ñoom lañ dee jàppa kon balaa ma dee def dara dañuy déglu juste su Gambia moo ëpp président mi doole ñii ñoo ma ëpp doole fu mu toll nii parce que ñoom ñooy wax yéen a bàyyi ko dama ko dee bàyyi yaa nag lii yoon deka bi dal na si seen kaw ñu teg yoon bi ci seen kaw loolu moo day nekk a maa ngi déglu juge yi yéen lañ cee merci euh, excellence ñu ngi dee la gërëm bu baax a baax di am mbégte ak kontante ci confiance ko ba ñu mën a di def até bi euh, waaw sans plus tarder dañuy day day jox rek ki nga xam ne mooy sama assistant du juge moom euh, mu daal di leen wax li nga xam ne moom la loi bi daal di décidé waaw ñu ngi ñoom ñi <coughs> dañu dee bàyyi ba président génn. ñu nekk fi des manifester. wallaay wallaay wallaay. ku ne xam naa ne loolu. Mhm. peine de mort la. Mhm, ray bi la. parce que c'est pas normal. ray la mhm. ñoom ñoom ñëpp seen atte mooy ray. kon loolu. article bi ban la. article 1810. 1810 moo cee baanaati. bi nga def démb. ah waaw. booy <laughs> bi ma moom bi loolu la waaw bu doon leeral lool comme ñoom dañuy dañ la war a rey. leen a war a rey. Ah, yooyu sax dañuy de euh, l'État. wax dëgg wax dëgg wax dëgg fa yàlla wax dëgg fa man sax bëgguma ko de wax dëgg fa yàlla bëgguma ñu rey leen waaye xam nga rek. justice moom su fekkee ne justice la. te mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. eh, doo mun a def lu dul nga doxale noonu parce que réew mi noonu la tëddee. Eh, yéen ñi yow loo defal yow ba kii. président man defuma dara man dama dee jaay ndox ci marché bi dama dee jaay ndox ngir sama njaboot yi. Ah, kon kii dafa doon jaay ndox. dafa dee la wax de. waaw moom kon moom wax dëgg fa yàlla. mun nañ ko bàyyi. Mhm. parce que jaay ndox mun na nekkaat ci manifestation bi. Mhm. te fekk ne loolu moom nekkuloon. Mhm. loo xam ne def ko doon xalaat waaye kon ñetta ñii ñoo nekk mbir mi. voilà yéen yi kon yéen ay opposition bu nga xam ne yéen a tas Gambia. Ah. because du nande daf suñu réew di xam jàmm da ngeen cee gis leneen lu dul eh, jàmm loola de monsieur le eh, eh, mbaxana kaay yow kaay kaay kaay kaay kaay yow ñëwal mbaxana ñëwal ñëwal man de jubluwuma si wax dëgg fa yàlla mhm. xam nga yéen wax maay fetal waaye xam nga ku ne xam na ni mhm. yàlla mooy rey mhm. yàlla rek mooy ñëwal yaay wax nag. waaye Gambia suma réew. sukal sukal sukal ndaxte yow. sukal sukal sukal. Gambi suma réew. la. ndax sukal sukal laa. si dara. Mhm. aw ma si sax bànneex. li may def fonk naa la. eh déglu. Mm, bànneex sax aw ma ko si ndeysaan ca yàlla. waaye nag ala kulli la bal bi def day yow eh kaay. digal digal digal wax leen ko mu gaaw aywa. ñawal ñawal ñawal. tournel sa bopp ak segal segal. xam nga rek. de. lii du dara. dawal xiyaam. neex na dégg am na ñu demaguñu fa waaye ah, am na lu wax ci dex meew yi foofu bisimilah voilà kaay eh, digal eh demal jàppa ko ngay dee gaal tuuti demal jàppa ko ngay dee jël ko segal aja arrière jëkkat yow ñaal yi ani euh, seen def nii di neexal sa bopp sa réew mi réew la moo xam ne réew mu neex la waaye nag fa ngay dem yàlla na fa fekkal lu neex. kii moo caga alaka nii lay deewee kii de dañ mel ni dafay nii lay deewee caga ba dee ne nga ni xanaa lii place su dee bi maa fi waroon a dee kii de dem na àjjana te suulaguñu ko lii moo neex rey ba jaaxal saf na de saf na saf ñu ngi àjjana ñoom ñaar kii kañ moom la ma ay mbóoram wóorul waaye ñaar ñi moom <laughs> àjjana mhm. yes Thiaroye Sène kaay ba wax dëgg yàlla la Tidor toog na ah Moussa Touré nee na Sénégal gii doxut waaye Sénégal demut mooy ndaxare fii ma wax di kadu Moussa Touré moo xam ne lu ni mel de xam le ne ni Sénégal gii waaye xuus maa ñàppale yéen yéen kaay bu ñuy tuddee eh, Guirawaly Jean-Paul Dias nee na ki nga xam ne wala njëkk tuddee yaa jame bu mu ñu fontoo parce que bàyyi gi ñu ko bàyyi ni sax complexe moom moom moom Jean-Paul Dias mooy wax loolu di ma ko jëmale. xaar ba mu dee day dugaat ci gaam bi bu boobaa ci lay xam man maay kan exemple amul problème baax na maa lay xaar lii man ngay gaawaale nekk sa dëkk di wax lu la neex waxal lu la neex dégg naa ko yéen a yéen a kaay bi la ñuy tuddee lu nga xam ne moom la naan ah bii nag mooy laxas mi laakar ci ku laxas ñëw na ak ñun ci kan la ñëw ak ñun laxas bi dafa ñëw ak ñun ci ki nga xam ne moom la ñu tuddee Aïda Mbodj <laughs> ci yoon lay yóbbu gaay parce que li ñu def ko. kaduk France Télécom Sénégal de dañu ngemb woon bindab lettre daal di mu xotti ko tereet parce que nee na du nawle waa Sénégal bu ñu ko fontoo yéen tibi sabas noo songo waaw waaw noo ko ñun ci kan muy man mii yaay jàmm sama xel ngi ci génne ambassadeur Gambie Sénégal bi nekk Gambie ma génne ko ne ko ji delloo adresse bi parce que du ngeen ñu fonto